séddale dund bi nga xam ne yàlla dafa dogal mairie bu Touba dégagé deux cent millions jënd ci ceeb ak sucre jënd ci aussi diw ak saabu pour jox ko population Touba bi kenn kon ne xam ne nag situation réew mi fi mu toll nii ci wàllu feebar bi fi dugg moo ko waral parce que nit ñi bu fekkee ne seen activité wàññi nañ ko di leen tëdduloo vingt heures di leen yeewuloo six heures du matin am na ñoo xam ne guddi lañ daan lijjantiku pour xëy mën a joxe dépense loolu day jaadu aussi ñi nga xam ne ñooy autorités yi ñu dénk leen dëkk bi te li ñu yor ñu dénk leen ko ñu génn ci tamit aussi delloowaat ko ci askan wi loolu moo waral tey ñu daje fi en tant que conseil municipal ak suñu maire Abdoulaye Ka ak ñi mu àndal ñëpp ñu def loolu pour jox ko askan wi pour askan wi tamit aussi mën a xam ne saay su nekk maire bi mi ngi seen wet dama jàpp ne devoir la waa ni ñu koy séddalee euh, loolu lu yomb la ñëpp a ko mën a comprendre parce que ñëpp am droit am information maanaam ceeb bi biñ ko biñ ko indee xam nga Touba dafa am nu mu tëddee ay village la ay plus de soixante quelques villages mais chef de village yëpp kenn ku nekk woo nañ la jox la bon war laa jox tamit li nga am ci ceeb nga yóbbu ko ci sa village mais li ci li ci am solo rek mooy ni ñu ko tëralee chef de village bi day bokk si ñi koy séddale chef de quartier bi da ciy bokk bajjan gox bi da bokk wala représentant femme bi fa nekk moom représentant jeunesse am tamit koo xam ne si ne moo moo fa représenté commune bi moo xam ne si ne ñoom ñëpp dañuy ànd bokk ci séddale bi loolu boo gisee euh, ñu def ko ci u maire dañu bëgg séddale bi am transparence parce que xam nga fii dafa bëri coow lu fi mas a ñëw rek dañ naan ñenn nit ñi ñoo koy lekk bàyyi bàyyi ñenn ñi séddale nag moom daj lépp yombul ndax Serigne Saliou Mbacké waan anhu nee woon na euh, séddale li tax mu metti mooy foo yem rek fa say noon tàmbalee te yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk ñun ñëpp sax di séddale moom séddul ñëpp waaye nag nañ def suñ kéemtalaay kàttan def le maximum def loo xam ne ñun suñu tëddee ñun ñu koy def dinañ kit ak suñu conscience li ci des nag xam naa ne ñu ngi koy xaar mun a ñàkk mooy ay coow du ci mën a ñàkk parce que am na ñoo xam ne si ne loolu non dañ koy xaar laa la wax waa xam nga tax ñu koy xaar tamit waaw moo tax ñu ko waaw mais xam nga ko fi ñëw tamit yaa fi indi sa bopp amul benn yoon boo xam ne mas nga mën nga dégg ku bokk ci mairie man ci conseil municipal bi laa bokk je suis le président commission jeunesse amul benn yoon ku mas a dégg ñu ne ñëw leen mairie ñu ngi fay séddale ceeb tey façon séddale bi moom kenn musul wax ne dañ koy séddale mairie ñi fiy ñëw ñëpp ñoo fi indi seen bopp nit nag sooy dem foo xam ne kenn woowu la fa yaa fay yóbbu sa bopp léegi nag da ngay assumer tamit coono ya nga fay jëlee ak la la fay dal parce que tamit nit nit rek nga mën a doon waaw mais est la ñu ñëw ngeen jël loolu moo gën a bon fi ñu toll nii boo fi indi woon ay nit tey jii ñuy dóoree wala ñu naan andu leen nit ñi xël fi xël fi di daanu image yooyu bu ko nit ñi kiyee xam nga fii téere bu bàyyi laay la nekk fii nekk fi ci institution wala ngay def wala ngay nga jiite fi dara téere bu bàyyi laay la takk dee tekki dee téere boo xam ne nag soo takkee dee soo tekki dee soo tekkee dee tekki dee moo koy gën benn yoon